di ndokkeel mboolem kilifaay diine yi nga xamne ñi ngi ci bir rew mi tay diko dalé ci fi ñu taxaw ni tay nga xamne moy pey Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xamne fi lañ taxaw tay di ndokkeel mboolem kilifaay diine yi bu ñu al khalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass mu wutu mbollem khalifa yi nga xamne ño nekk ci bir rew mi yëpp nga xamne tay ñëpp ñi ngi ci fet di wax ne di ñaan yàlla aussi mbas mi nga xam ne moo tax ñu julli ci condition yu tëddee nii yàlla dimbale ñu ba mbas mu dem nu mu gën a gaawee ci ak imaamul akbar li muy wax ne yàlla na dem waaye yàlla bu mu fi bàyyi benn fàttaliku bu ñuy bon bàyyi ay naqar-naqar loolu la ñuy ñaan yàlla mais di sant yàlla bu baax di ndokkeel aussi mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp buñ ndokkeelee kilifaay diine yi ndax tey bisu diine la ñu ngi ndokkeel tamit président Macky Sall di ndokkeel mboolem gouvernement am waaye di ndokkeel ci buntu président Macky Sall mbooleem population Kaolack tey nga xam ne moom la yàlla dogal tey mu jiite ñëpp mu jiite ñëpp di ko ñaanal moom tamit yàlla yàlla defal ko kattan ba lii mu song ci réew mi song ko ci àdduna song ko ci Afrique yàlla may ko taw fiix yàlla defal ko tey siir ba lépp li nga xam ne àdduna bi ñu ngi koy yaakaar ci moom yàlla wan ñu lu ëpp doole ci moom ci moom ci loolu. fii moom dipp ñuy jàng nekk ci daara ji di jàng fii moom mës a nekk suñu suñu place moom mës nekk suñu kër pour mboole seeni xew-xew yi mës a am yëpp muy iid ak lu mu mën a doon fii lañu koy defee loolu du tey. lu jamono ko indi déedéet loolu lu mës a dund la ci jamono bi ñu nekkee ci daara yi di jàng ak bisab tey mësuñoo dañ ci loolu te incha allah ñu ngi ñaan yàlla dimbala ñu ba kër ak ñu dajeeg moom duñ dañ buñ dañ ci loolu. imaamul akbar wax na ci njariñu koor wax na aussi ci bisu tey bi ni ko yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee woon wax na tamit ci ni nga xam ne noonu lañ war a taxawee ci lislaam ak ci diine wax na aussi ci lépp li nga xam ne nii war nañ koo taxawee. jëm ci koor ba keroog koor di jeex ci nawaafil yi ba keroog naafile di jeex ci muuram koor ba keroog muuram koor di jeex ci bisu tey bi niñ ko war a génnee ak fi ñu war a jaar ak ni ñu war a soloo ak lépp wax na ci loolu mooy mission bi nga xamante ne ni moom tamit loolu ci la war a nekk nekk na ci ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dimbale ko may ko kàttan mu yàgg a jiite ñu naka ñu yàgg topp ci ginnaawam dégg nga tamit sëñ Mouhamadul Amin Ibrahim Niass waade wu réew yi nga xam ne waade na ko wax ci niñ war a taxawee wax ci niñ war a nekkee ay jullit wax aussi ci mbas mi ñaan yàlla yàlla dindi ko ca ci seen bunt yi rek la ñuy taxaw pour ñaan yàlla def tawassul ci ñoom tamit pour yàlla dimbale ñu mbas mi ñu nekk yàlla dindi ko nu mu gën a gaawee ndax loolu mooy njëriñu àdduna bi waaye mooy njëriñu Sénégal waaye mooy njëriñu àdduna bi yëpp maa ngi sant population Kaolack ñëpp góor jigéen région bi yëpp di ko jaalale ci gouverneur bu Kaolack di ko wax ne ko pour mu jotaleel ñu suñu message ci mboolem population Kaolack pour yàlla dimbale ñu yàlla may ñu jàmm ak mboolem préfet yi nga xam ne ñoo nekk ci suufam di liggéey ca tàmbalee ko suñ préfet bopp bu muy préfet Kaolack.